noo fu mu ne yàlla baax na ñu yegg ci kaw tribune bi tey moo yegg ci kaw bi. <laughs> Tata Rose. comme une rose laa la wax nii. copp ci kaw tribune ba nag. une femme très douce. coow li coow li moo di bu fekkee dañu dem ay. élections oui j'ai bu fekkee dañu dem ay élections tëgg ko. waa léegi cas Rose Wardini ñu koy def. dañ ko war a liñ bët. moom laa leen wax. ñii ñëpp mën nañu waat ne passeport sénégalais la ñuy tukkee. nii nii nii nii tous ces la. fi réew mi toll waat nañ ko de publiquement mooy déclaration. waaw mooy déclaration bu ñu dugal. waa léegi. kaawu Rose Wardini Wardini mi moom laa doon wax sans conseil dañ dañu leen teg ne leen dee leen saytu bu dugalee sa déclaration du tere. Rose dañ koy lim ba Rose defal si ginnaaw ak waaw parce que ñi nga xam ne ñoo yor parrainage yi boo àndee sa mënoon nañ yem rek ah kon matal nga ok ñi ñëpp signal nañ la ok validé buñ defoon loolu jàpp mi xool doublon yi coono boobu la ñu yi ndax yow wàllum fiscalité yi ndax yow mojj wala mojjaani waaye toog ñu la xul benn waaye démb naan cent quatre-vingts pays mën ko bu doon quatre cent pays dañ la fay pour ça dañ la fay pour nga seet ko teguñu la fa pour ah waaw lii xel war na cee mën a daal bokk nañ ko signé tegu ñu pour loolu dañ fay ñun yoruñu. Hmm. fakiir lañu li ñu am dañu dajale jox la ne la gérer. tamit kaaw Rose Wardini mii nga xam ne dañ ko dañ ko arrêté woon ndax mbirum double nationalité waa dama léegi li ñu koy def laaj baa ngi noonu de combien de candidats validés ont la double nationalité mooy li El Hadj doon wax. Hmm. sëf la de. waaw mais ñëpp dañ def conférence de presse comme ni Malick très bien. nañ ñëw génnee quitus fiscal taxaw waat ci kanamu ñëpp. ne amul moom de brandir na. Hmm. ne leen maa ngi nii. eh booboo booboo gën a garaaw passeport yi de am passeport yu jàmbur sax dafa xaw a jafe de. Hmm. waaye fii ñi nga gis ñëpp laa lay wax ni lu mu bon man am nañ benn poxus bu ndaw bu ñuy liggéey entreprise bu ndaw ku leen ne ñëpp ñëpp neen. Amadou Ba ci boppam la Malick Gakou wax ne. ñëwal nga wane ne yow amee loo benn impôt. ndax amee benn bor ndax bor topp la. waaw ndax yaa ngi ne kaan rek. waaw. parce que waxi Malick neneen nga koy. boobu buñ fa duggee. buñ fa duggee loxo dara génn. nii lañ nar a demee élection yi ak coow lu bari nii. nii nii nii nii nii nii nii nii nii yéen candidats yi nga xam ne jot nañu leen valider waaye dama ne conseil conseil ne li jëntil ñaata ñoo ci am double nationalité lu mën a nekk la ak kitis bi brandir leen ni maa la gàpp def nee na maa ngi nii nañu ma ca kaccet benn bëñ laa dama weextaal yoroo ma benn bor ñu seet nañ def lu ni mel bu fekkee def nañ ko rek nag ñu xam ne après ñu doxal amul problème ah, ah kay en tant que binational Karim Wade doit doit lan di la la ni du Karim Wade est coupable de parjure faux et usage de faux ndax nag bu fekkee nag mbirum nationalité double bi dañ ko teg ci ndoddu Karim Meïssa la daal ki nga xam ne mooy Rose Wade yi nee nañ waroon naa mën a daal ki nga xam ne moo di Karim Meïssa Wade xanaa balaa nga naan nam defa moom ja moom jàngul ni ñu koy yóbbee dig anamu moom a jaaxal a ah, nekku fi <laughs> moom moom dina moom kalaamee nañ ko jàpp ko loolu rek la conseil constitutionnel la rocc ko ca liste ya waa këram continuer di xeex nekku fi di mais ñi fi ne nag hmm? ma doxal président Macky Sall ndax dana def preuve de sagesse après l'invalidation du report de la présidentielle par les sept sages ñi ngi xaar nag xippi suñuy gët di xool président Macky Sall mu fas yéenee taxawee jamono joojee nag kii nga xam ne mooy Cheikh Bara Dolly Mbacké jaay na wax ji de. nee na lan. nee na Ousmane Sonko pare na pour dialoguer. ah vu comment. Euh, moo ko wax. vu les certains retours. moo ko wax moom Serigne Ba euh, Cheikh Bara Dolly Mbacké plainte bu juge Cheikh Ndiaye daanaka nag plainte bii nag commission d'enquête parlementaire bi moo ko gas ba mu xóot ñu daal di koy suul donc nag coow li pamte pamte gi euh, ak ñi nga xam ne nag ñu ngi ko doon ŋàbb boor bu ne commission d'enquête parlementaire bi bu ñoom Abdou Mbow moo nekkoon président bi léegi nañu nañu gaaw li jën ci plainte bi kon mu leer ci bopp askan wi yëpp parce que lii itam dafa war a leer ger coow ger comme leerewul assemblée ci justice yéen a war a a dem ñu ne ñaar ñii si ñi war a tànn leen tuumaal tim ger ñu war a bàyyi noonu mu sedd en tout cas tribune yéene kay na ant commission d' enquête parlementaire bi gas nañu ko si suuf euh, lu doy waar moo xewoon nag ci weekend bi sa marché Colobane benn camion bu nga xam ne dafa dérapé mhm. fekk ji jaaykat yi am ñu sa ñu sa ñu sa faatu doy na doy na waar torop nag maa ngi gis sax càmm di ko mais camion boobu bu doon yoon warul woon sax yegg foofu parce que heure boobu non camion yi dafa am heure bu ñu war a dugg Dakar ak heure bu ñu ci war a génn loolu est-ce que warul woon daw loolu yàgg na de warul woon sax daw ba yegg foofu ñu ñëw ci critique yéen kaay proposition bu euh, ministre Doudou Ka jëm ci présidentielle moom Doudou Ka dane ñu jàpp kon date ak euh, li nga xam ne moom mooy conditions yi ñu koy tërale su ko defee ñu mën a euh, tëgg élection yi 10 mars wala le 10 wala le 2 juin coalition Diomaye président nee na si ce le 3 c'est le 10 mars Diomaye président la décision des sages remet en cause la souveraineté du euh, parlement moom la Mamadou Fofana doon waxtaane sànq euh, ci euh, yéenekaay bi l'évidence yéenekaay daal di dikk le terme de détenu politique prend tout son sens ndax nag bu fekkee dañ ne nañu libéré détenu politique ñu gis jamono jii gaañu ñu leen di libéré comme pas possible daal ñoom ñu wax ne nag bu fekkee nag kon du ñu ay détenu politique lan lañu est-ce que kon joxuñu raison ñi doon wax ne kon. ñii mhm. ay détenu politique lañ. parce que si lañ leen bàyyi ci ay négociation yéen bi daan na siy dikk di euh, l'évidence. Macky weeru nañ ci moom. ah takk der yi xale yi génn ni ñu doon wax ne noonu lañ leen doon arrêté ak noonu lañ leen doon traité. ah takk der yi war nañoo gën a góorgóorlu. doy na ne seen tënee yi lañ leen rusé waaye kenn ragalu leen yeggal leen. vox populi daal di ñëw danaa yeggal <laughs> non mais dëgg la. sol tëni mayu la sa waay ngay jàpp doomu aadama yi mala sax yéene kenn du ko ko def. yéeme na nag de yeggal leen cacophonie la ñu wax. jàppum dat beex concertation bi ñi ne ñi ne dialogue la ñu bëgg ñi ne euh, euh, euh, concertation la ñu war a woote ñi ne conférence lu mu ci manti doon cacophonie moo ci mais dialogue bi xamala moo tax am na dialogue El mu doon fa ñu jëm a waaw mais dialogue am na xam nga mën na la dialogue am. xam nga mën la dialogue am. Euh. ñëpp a ne à partir de à partir de de du du deux avril. Mm-hmm. Macky Sall jeexal loolu. te day dem kon defar na ay bagages. Macky bu doon concerté wu fi ne nii moom am na résultat wala. mu nekk nii. waaw moom bu doon day concerté wu moom am na avis wu peuple bi. avis wu peuple bi mooy nañ leen ko tëgg. balaa le deux moom dafa war a dem te muy dem wo bëgguñu ñun transition ay jox président assemblée nationale rek wala jox ñeneen. mu ñu jógee ci Macky dem ci président bu bees bi. d'accord dem proposé na dal mm-hmm. le 3 mi ngi noonu. élection mi ngi nii le 17. le 31 deuxième tour mu jeex. jàmm nañu oui. Diomaye président ñoom nee ñu ne ñu ko tëgg avant avant le 2 avril. déggoo lu gàkku na leen le 3 mars. ñëpp waay yow. ku si nekk joxe na date fa mu nekk nii. ñeneen ne nañu dialogue ba pare ñii joxe nañu date euh, ñeneen ñi ne nañu ko tëgg avant le 2 avril lii rek moo war a tax nag waxtaan am ñu jàpp benn date. parce que mënuñu tenir ay élections joxe du précise. aywa. <laughs> waaw Gakou propose 3 mars. ñeneen nañ avant le 2. Karim les autres spoliés euh, intraitables sur une reprise intégrale du processus parce que nag nee na ñu liste officielle bi daanaka ay gàkk-gàkk yu lu jeex la. Karim et les autres spoliés génn leen si Bougane Mimi Touré ak docteur Abdourahmane Diouf ñoom nee nañ tëgg élection yi. problème bi ñoom ñëpp dañ ne nañu nañu tëggee yi. ne naan bëgguñu dialogue. ñii ne concertation la bëgg ñii ne nañu ko jàpp ca date problème bu date dara mais problème bi du ah, élection boobu. Ah, yéen tamit li mu leen wax li jàpp leen loolu. d'accord ñoom a gën a xam wax leen ko ko. porte parole la de porte parole des trois la. elle donne une ah, porte parole des trois la. info la leen di jox d'accord nañu. info la neen ñoon nee na nañ leen ci. waaw moo tax ma ne leen génne ci la. foofa naa nañ def comme ñeneen on prend acte. <laughs> Bougane yow Bougane nee na nañ ko tëgg. mu jeex yàgg Mimi Touré ak Abdourahmane on prend. waaw léegi kañ kañ Momadou. yow parce que dañ ko doon xam ne ñoom ñoom seen bëgg-bëgg mooy ñu tëgg élection. yow ah, mais kañ. non il faut être précis nag. yow porte parole baa ngi nii dañ koy tëgg. ba pare est ce que processus bi yëpp dañ koy commencé. wala daal wala au maintien. wala au maintien nee nañ nañ tëgg élection yi nii le deux. nii nii nii dans ces conditions nii. waaw ah, donc ñoom mën nañ jàppale euh, keneen peut-être deuxième tour bu amee. j'ai pas dit ça dama ne. il faut être précis da nga ne nañ ko tëgg nii. waa nii nii. benn ci ban date ñaar. ñoom joxe ndax processus bi fii nii dañ ko fi war a gaaw soppi nii. Mhm. balaa la deux mën nañ ko fi soppi. Gakou a proposé la date du du du

<laughs> Bouga Abdourahmane. mais ne décrédibilisez pas ma posture journalistique aussi ce que je dis moins que la thèse Bougane gis nañ ko mu ne nañ ko tëgg Macky Sall war na dem avant le 2 avril et eux ils savent ils sont aussi bien conscients que mënuñu fee tëggaat processus électoral bi dafa nar a jël temps donc li fi ne avec les vingt candidats yoo xamante ni conseil constitutionnel validé na leen nañ dem parce que avant le report de l'élection présidentielle bi ñu voté woon gis nañ ne ñoom amoon nañ ay pour yenn candidat yi ñu jàkka jàllale ba pare ñooñu excusez-moi laissez-moi terminer ñu jàppale leen ils ont courtisé leur électorat attendez seen débat li ñu répondant la coalition <laughs> MAP la coalition MAP moom mooy porte seen parole euh, waaw Mimi Abdourahmane Bougane ah, mooy MAP yow yaay seen porte parole man yàlla baax na yàlla la coalition MAP la yow yaa porté ma man li ma la laaj dafa simple. mais non mais li ma la tontu leer na de. pourtant ah, li ma la tontu dafa leer nañ. non non on recommence tout ou bien on maintient. non je. waaye côté boobu alors posez la question à waaw boo xoon comme ça ñu ne ñoom nee nañu nañ def élection ci ak benn yi. waaw naa dañuy comprendre. loolu bu boobaa damay nekk porte parole. mais ce que je dis. non ce que je dis je ne porte la parole l'étendard de personne. ñoom nañu jël nañu jël en considération ñoom seen position. ok c'est ce que je dis maanaam nañu dem ci ay élection. benn yi boo yeggoon ci benn yi ñu d'accord. yeggaleen doxal man daal naqari naa mais ñoom ñëpp. man man li ma dem ne ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy ñu tuddee élection mais dajee wuute. en tout cas daal Macky moom def na ay bagages am dem la. fañ jëmata yeggali li fañ jëmata yeggali. Gakou brandi son crise na ku mën na def police maa fekk la bëgg. Gakou nee na ku mën na def te Abdou bëggul lëndëm. Gakou nee na bëggul lëndëm moom daa brandi la kayitam nee na maa ngi nii weex taal benn bëj jigéen nañ. weex. ku mën na def nag yoreelu kenn bor lekkul xaalis kenn comme ñu tëral nit ku jàkk nii naan. yow eh, eh Mambay xanaa xamoo quitus fiscal bi nee naa la mooy gën a garaaw passeport yi. passeport yi dañ leen di compter après. mën na nekk ay leen yéen seen kii ñu xool ndax am ngeen bor wala déet. lay loxo dara. appel à la dissolution du conseil constitutionnel à quoi joue ah loolu tam mën na nekk nag nañ ci bàyyi xel bu baax rek fii daal fu mu nekk lu nekk mën na ne laaj yéen a kaay daal di dikk nga ne moom mooy. président Amadou Mame Diop ma nga xam ne assemblée nationale pour mu seet problème la mu war a nekk nag suñu suñu président ci quatre-vingt-dix jours. de waaw quatre-vingt-dix jours boo leen ma defoon président ba ma nekkee candidat du ma diil ak Macky kon ba léegi xoolal maa ngi toog ci perchoir bi te naan ko dangay dem ci nii wala ci nele.